asalaamaaleykum mbokk internetu bët set ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme nag ni ñu koy faral di baax di defee saa su nekk rek nee naa leen lan la Aïcha ngeen di àndal xale bu rafet ak Moustapha di leen ziar nag ñu defee saa su nekk rek nee naa leen ñun ndaanaan yi rek la ñuy seet si fépp fu ndaanaan nekk rek ñu daal di koy indi dalal ko fas yéene sekk ak moom waxtaan tey nag ñu ngi fii ci Ouest Foire ñëw seet si ki nga xamante ni moo di Billy Billy booy xam naa ne euh, ñàkkul am ñenn ñu ko fàttaleku ah waaye sama genre nga xam naa ne fàttalekootuñu ñu ko temps yu théâtre Billy Boy xam nga ñoom Cingaz waaw ndaw si nu mu tudd di Cingaz ah moom la ñëw seet si tey du ñu def rek lu mooy daal di euh, dugg ci biir sekk ak moom waxtaan. Moustapha topp ma. salaamaaleykum. salaamaaleykum eh <laughs> mais grand yaa ngi noos de. <laughs> ñu yegg si. ayca tey yow la ñu. excellent excellent excellent. merci beaucoup ana ataaya bi. ataaya baa ngi nii Aïcha. la wala deuxième. bi lëwal la. ci ci ci lëwal <laughs> gis neen comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek eh, nee naa leen tey Billy lañ ñëw seet si moom lañ fas yéenee dalal fas yéenee waxtaan ak moom ci liggéey bi parce que sénégalais yi gëj nañ ko gis tey tamit namm nañ ko lool léegi nag du ma def rek lu mooy bàyyi ko mu nuyoo ñu daal di yegg ci biir waxtaan bi Billy ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay bu baax a baax la dañ la gis foo nekkoon. waaye maa ngi fii rek ci tunnel rek di di xarmat di liggéey comme sénégalais yëpp di xëy di wàcc am dund bu normal voilà. mais lan ngay làqatu xaaral ma jege si sax ñu mën a waxtaan bu baax lan ngay làqatu lu lu tax nga nekk ci biir tunnel yi. non làqatuwuma sax làqatuwuma xam nga àdduna moom ku yàlla feeñal rek dangay feeñ ah ku yàlla feeñal rek da ngay maa ngi maa ngi ci sama liggéey. incha allah bu li ñuy togg bu ñoree rek dina feeñ waaw. Euh, ñu gën ñu bëri gën a xam Billy euh, ci théâtre actuellement fi série toll ak gars yi ni ñuy ni ñuy dawalee euh, bu jeex beneen ñëw gisuñu Billy dégguñu si bi lan moo tax loolu. maa ngi ci biir maa ngi ci biir nag parce que man ni ma nekkee ci biir mooy ay sénégalais ñoo koy def bu njëkk ba ay télénovelas lañ daan gis ñu gis ay film ay série indu mu metti woon ma trop parce que je me disais Sénégal war nañu mën a produire suñuy production bopp. ñu jaay ko ay sénégalais fait des par des sénégalais pour de sénégalais donc bu ñu ba toll foofu noonu ma nekkoon loo xamante ne loolu laa doon ñaan yàlla euh, dama ciy gis sama bopp donc euh, d'une certaine manière maa ngi ci biir mais donte feeñu ma mais maa ngi ci biir maa ngi ci biir am na ci ñoo xamante ni dañ may woo di ma di ma di ma laaj ay ay xalaat sama xalaat samay conseil affaire yooyu noonu donc yu bëri dama ciy joxe samay xalaat yu ñuy appliquer donc bu ma nekkul ci kanamu écran bi tamit maa ngi ci ginnaaw. voilà mais ñun suñuy production bopp incha allah yàggatul dara bu ñëwee rek dinañu yëglu incha allah. Euh, léegi toogaayu bi lii lan la mi ngi RTS ba léegi wala ci ban liggéey la nekk. si si si man daanaka RTS moom fa laa juddoo fa laa lépp lu ma xam ci wàllu liggéey bi RTS laa ko jàngee parce que ki ma ko jàngal RTS la nekk ba retraité euh, mooy Boubacar Ba muy sam euh, donc RTS doon sama kër yàlla dogal tamit ma dem ba fay liggéey. ah nekk fa un agent simple euh, yàlla tamit dimbali ma ba ñu taxawal ñun suñu entreprise boobu bu tudd Iris audiovisuel nekk ci production audiovisuelle donc euh, voilà quoi mais du dara ñu ngi liggéey ah ñu ngi liggéey de. waaw euh, tey entreprise boobu ngeen taxawal tey est-ce que mën nañ leen xaar ci yenn série yi wala mën nañ leen xaar ci lan ci li ngeen di yëngu-yëngu pour pour mën ci jàpp ci côté théâtre bi ci côté cinéma bi lan la. bien sûr dinañ indi suñu wàll ñun tamit parce que affaire bi liggéey bi. liggéeyu mbooloo la liggéeyu euh, c'est un travail collégial ku nekk dangay indi sa sa sa wàll ci liggéey bi euh, ñenn ñi ñu ngi def ay affaire yu nice mu ngi feeñ gars yi ñu ngi koy xool ñun tamit incha allah lépp lu luñ ci mënti indi rek dañuy yokk ci xar mi karaw rek ah dañuy yokk ci xar mi karaw donc euh, ñu bari ñu ñuy xaar nag suñu génn nag warul yomb xam nga moo tax ñuy togg di baaral. parce que bu ñoree daal nit ñi war nañu xam ne ñor na quoi incha allah. d'accord euh, Billy ñaata théâtre la def. ñaar yi nga xamante ni man moom la joué ñaar am na yu ma jot def nag yoo xamante ni du fii bitim réew la du théâtre euh, ay film la man du ma théâtre kat euh, film lay def fa je suis un acteur comédien mais je suis pas en voilà je le théâtre parce que jàngu jànguma loolu quoi donc ñaar Sénégal ñaar la xam ci yi ma def. am na yeneen yoo xamante ni bitim réew la ay film la ko yoo xamante ni euh, figuration la yoo xamante ni c'est des rôles aussi assez importants waaw. Euh, ñaar yi mooy ban ban fàq man ak ban. fàq man ak wëndeelu wëndeelu mooy bi nit ñi di wax Billy Boy voilà ñaar yooyu la euh, tey sa sa sa théâtre Fakman mu nekkoon loo xamante ni sénégalais yëpp dañ ko doon seetaan ñëpp dañ ko bëgg actuellement mu mel ni li nga joué woon démb moo taxaw tey ci population bi ban gis-gis nga ci Euh, comprendre ma question bi. maanaam comme euh, affaire fàqmaan ni ngeen nekkee woon ay booy di di tuur di gains di def ay kii xam nga jamono ji la gën a bëri comme jamono jamono yële tey boo toogee di gis li nga joué woon démb di ñëwaat tey ci vie normale bi nii ban yëg-yëg nga ci am. Euh, yëg-yëg bi ma ci am mooy li ñu do li ñu jotoon def li ñu joué woon am na ñu bëri ñu mu yee. Euh, ñoo xamante ni teg naa ci sama bët jot nañu waxtaan damay dajak ay nit ñoo xamante ni dañ may naan bili wax dëgg yàlla li ngeen def moo tax mu génn ci lii ma nekkoon ci tux bi ci mandi bi ci yeeg yooyu doonu euh, li ci li ci nit ñu war jàngat bi ci nit ñu war a am mooy mosu fi jógee lu mu lu fi lu fi lu fi nekkoon la euh, ñun laata ñu koy def mu ngi fi woon bi ñu ñëwee def tamit fekk nañ ko fi te bi ñu koy euh, dale bi ñu ko defee boobu ak léegi tamit mu ngi fi jógewu fi euh, li ñuy ñaan yàlla kay mooy mu wàññeeku léegi nag xëy na dafa gën a fës tey parce que lépp lu waaye di def war na moytu parce que lépp lañuy ñuy filmer léegi réseaux sociaux yaa ngi fi téléphone portable léegi xam nga bu njëkk ba journaliste yi bari bari woon mais léegi ñëpp ay journalistes lañ parce qu'on est seize millions de journalistes ku ci nekk am nga téléphone portable donc à tout moment chacun est susceptible d'être filmé donc nit ki lépp lu muy def rek nañ bàyyi xel ci loolu noonu xam ni lu waaye nëbb lu muy sori sori sori sori bis mën na ñëw yàlla feeñal ko mbir yi foofu la toll yàlla loolu la jagleel doomu aadama technologie bi euh, donc euh, am na ay aspect positif am na ay aspect négatif donc affaire fàq maan affaire demee noonu tey la tey la gën a siiw parce que tey la jumtukaay gën a bëri pour si pour ñu siiwal loolu noonu mais yàgg na fi c'est un fléau boo xamante ni voilà euh, def nañ ci ñu ngi ci xee jot nañ ci xeex lu bari ñu ngi continuer xeex parce que nit moom boo gëmee dara da nga ci xuus continuer ci yàgg ci yàlla dina la dimbali Euh, nga am ci gain de cause quoi mais euh, avantage bi ak euh, technologie yi bees yi ak internet bi mooy dañuy fesal loolu tey jii ku ci demoon ba ciy dugg boo bàyyee xel ni xëy na dinañ la gis wala dinañ la dégg dinga nga moytu di nga teggiwaat sa tànk loolu moo waral loolu moo waral daal pour man jàngat biñ ci bi ci nit ñi war a am mooy nañu moytu. nañu moytu et puis ñu bàyyi leen xel ñoom tamit parce que ñu ci bëri pour ñoom xëyuñu bëgg nekk ay bandi wala bëgg nekk ay fàqman dafa am ay difficultés yu métti yi ñuy dund ñoo xamante ni am na ay association yu bëri yoo xamante ni rencontré naa leen donc euh, dañ lay expliquer bu ñu lay expliquer danga naan ah kii sax dund bi muy dund nii sax amaana moo gën dund bi mu nekkoon xam nga ay nit yoo xamante ni seen i waajur dañ leen di sànni yóbbu leen daar bàyyi leen foofu duñ dootul leen toppatoo buñ demee foofu noonu voilà Euh, ma yàlla rek moo xam yan condition la ñuy dundee foofu noonu du daara yëpp nag wax dëgg yàlla am na ay daara yoo xamante ni ñu ngi teg affaire yi ci yoon xam nga bon dama cité daara rek mais il y a plein d'autres plein d'autres quoi yu waral yu waral loolu noonu mais. sànni bi daal moo. voilà ci sànni bi xam nga jur doom sànni dafa dafa metti xam nga jur doomu sànni dafa metti donc pour man ay nit yu ñu war a bàyyi xel lañu et puis voilà euh, ku ci mën a def dara ku ci mën a sensibiliser ku ci mën a apporter sa pierre à l'édifice na ko def et puis xëy na benn yàlla dina def xewal xam nga loolu dañ fi. Euh, Billy est dafay tox non non Billy du tux taalibe Cheikh la. Billy du naan. non Billy du naan du tux dafa jël wérd Billy ñemewul loolu xalaatul loolu sax. léegi lan moo lan moo taxoon gaa yi dugal la jox la euh, rôle boobu pour nga jouer ci bëgg nañ ko xam ak euh, lan moo la ci dugal casting lañ defoon nga dem ci wala. man chance la rek dama du woon man sax man maa waroon def loolu. Euh, sama rakk la woon mais sama rakk moom nekkul ci yooyu man puisque maa doon animé kër ga nekkoon clown bi xam nga xumbal yooyu noonu. xam nga ñu proposé ma ko ma ne man dama koy def après ñuy def test yi affaire bi jàll finalement ñi jël ma paa bi jël ma pour pour ma def ko biñ ko defee yàlla dogal affaire bi am succès bu mag sax bu mag mag bu bu bu mag bu bu weesu sax ñun suñu njort xam nga et puis euh, voilà ci noonu de fil en aiguille c'est normal boo ci nekkee boo tàmbalee xale moom boo tàmbalee benn affaire xëy na toujours loolu ngay continuer ko donc euh, voilà paa bi tamit nekkoon ci métier bi. ma ne woon man sam li muy liggéey loolu laa bëgg liggéey. ah sa papa moom moo def film bi. waaw moom moo réalisé film bi parce que c'est un réalisateur xam nga lépp li may jàng tey aw ma euh, soxlawu ma dem jàngi ko feneen parce que li may jàng feneen mu ngi sama ron tànk muy sam papa xam nga xam-xam bu gàtt bu tuuti bi ma ci am tuuti moom moo ma ko jàngal ci moom laa ko jàngee euh, maa ngi continuer jàng ba tey ci moom. objectif bi kay mooy attendre niveau moom donte sori naa ko torop mais tey jii nii loolu mooy sama objectif atteindre moom niveau euh, de professionnalisme bi mu tolloon ba ay moromam yëpp ràññee ko fu ñu xam ko fu nekk ci àdduna. mais tey film bi est-ce que bi mu jeexee euh, Billy amu ci problème est-ce que du génn nit du ko xool bët yooyu wala ñu ko ci wax yenn wax yu xamante ni dina am lu ko ci naqari. non loolu du ñàkk mais wax dëgg yàlla man mosuñu ma wax lu ma naqari lenn rek moo a doon naqari su ma génnee bu ñu ma nee Billy Boy dama doon xeex ak bu dee sa morom la bu ñu ma nee Billy rek ma xeex parce que neexu ma woon xam nga neexu ma woon quoi ñu may woowee beneen tur bu dul sama tour xam nga da ngay am impression ni que dañ la dañuy xam ne dañ ko dañ la ko nangu et puis euh, tu te sentais un peu privilégié par rapport ak say morom xam nga euh, voilà man yàlla dogal na sama éducation. musuma xam nga permettre ma may dundee loolu quoi xam nga euh, ay succès ak affaire yu demee mënul fees sama bët ba ma am benn yenn comportement yi ba daf ma doon gêner quoi donc bu ma rombee ñu woowee ma Billy Boy ba léegi ni sax ah mais puisque màgg nga léegi da ngay gérer yenn kii xam nga mais bu njëkk boobu dañ dama daan mer buñ ma nee bu ma rombee bu ñu ma Billy Boy ba ngi nii tout ça damay dee sama morom la quoi xeex xam nga bu fekkente ni doo sama morom dama lay damay daw daw daw ba sori après ma saaga la daw. <laughs> xam nga waaw xam donc euh, euh, donc voilà euh, après après nit ñi dañuy apprécier nit ñi beneen beneen beneen boor bi mooy nit ñi dañuy apprécier dañ lay woo wax la effet bi film bi def ci ñoom maa ngi fàttaliku sama maam ci film bi bi ma ciy dee noonu moom jël na ay musóoram bagaasam yooyu noonu yëpp ne ne day ñëw soutenir sama yaay parce que sama yaay war na nekk si njàkkare doomam dee na ak yooyu noonu setam dee na yooyu noonu yëpp et puis du moom kese am na ay mag yu bëri yoo xamante ni. sa maam dëggantaan maam dëggantaan. xam nga am na ay mag yu bëri yoo xamante ni dañ ci jooy xam nga ay xale yu jigéen yoo xamante ni léegi euh, ay ay jànq lañu ñoo xamante ni bon xëy na sax bi ñuy seet film bi bi muy génn boobu juddooguñu mais après buñ ko seetaanee ñoom parce que film bi tiens-toi bien am na 30 ans man cos laa nag de. xam nga euh, duñ ko seetaanee dañuy dañuy jooy dañuy am lu leen metti parce que c'était bien fait la réal c'était une belle réalisation et euh, qui se rapprochait plus de la réalité. Hein? Euh, des narcotrafiquants et puis drogue li mu mën a def ci nit et cetera et cetera donc c' une belle sensibilisation quoi et j' fier d' avoir joué parce que pour man c' était pas un rôle fortuit c' était pas un rôle boo xamante ni dafa doon yàq société c' était un rôle boo xamante ni dafa doon yee nit ñi ci société bi ak réalité yi nekk fii nii ci wàllu euh, ay drogue ay fàq maan ay xam nga ay yu bon nit ñi di jëfandikoo ak yooyu noonu xam nga mun na rey nit. mën na yàqal nit dugal nit kaso mën na yàq avenir nit mën na tas sëy mën na façon lu bon loo xalaat mën na ko def donc pour man j'ai été fier d'avoir participé à cette belle sensibilisation waaw euh, tey ban ban ban séquence moo la gën a marqué ci yëpp ak est-ce que sa gars yi ñi ngi ko doon jouendoo yéen a ngi di yéen a ngi déggante ñu ci bëri dégganteetuñu ñu ci bëri dégganteetuñu bon séquence bi ma gën a marqué Euh, mooy séquence bi ma doon joué ak sama séquence yi ma jot a ak sama nijaay bi ñuy wax Aba Thiagne ci film bi te mu te mu wàcc liggéey décédé na léegi donc film boobu moom film boobu mënuma ko fàtte parce que parce que man man dama amoon dama am projet def Billy Boy 2 xam nga euh, demoon naa ba waxtaan ci ak moom ba moom si boppam mu mu mu bénir loolu quoi projet bi. ba xam nga waxoon ma ni que bu bu ma paree rek naa ko ko wax ñu ñu song projet bi xam nga ci diggante bi nag mu gaañu donc loolu euh, après tax ma changé waat écriture bi bari euh, yàlla rek moo moo moo moo xam ndax suba dinañ yeew wala duñu yeew mais mbébét bi ma amoon ak projet ak yéene bi ma amoon mooy defandoo ko ak moom ah mais yàlla dogal na yàlla moom na ko quoi di ko jaalewaat encore une fois tout sa famille ah ay doomam di ko jaale sama bopp parce que sama nijaay la sama papa la moo ma yar di ko jaale Sénégal yëpp ak soppeewam yëpp quoi. d'accord euh, ban série mooy sa série. Euh, fii Sénégal série ban série mooy sama série série yëpp série yëpp neex na ma. ban ci gën seetaan. mooy bi jigéen ñi di imposer rek maîtresse d'un homme boobu moom nga bëgg ko bañ ko moom da nga koy waaw. ndax la mais parce que ça dafa dafay laal xolu sénégalaises yi xam nga maanaam xolu jigéen ñi parce que c'est une série boo xamante ni macha allah sama sister Calista bi ko bind. Euh, dafa dafa daf ci touché xolu xolu jigéen ñi te ku wax jigéen wax góor parce que góor mënul dem sans jigéen ñun dañu nekk suñu kër rek mais jigéen ñi lu ñu bëgg à la fin de la journée loolu la ñuy def de. da ngay ñàngal journée bi yëpp nga ñàngal mais bu ngoon jotee ku jigéen ki li mu bëgg loolu ngay def donc fu naan boo téye télécommande ñàngal bu ñëwee ne la maîtresse teg xam nga donc donc c'est normal euh, c'est normal moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy bëgg quoi man moom laa bëgg parce que déjà je pense que c'est très bien écrit ah l'écriture elle est très belle lee comédiens sont magnifiques wax dëgg yàlla xam nga techniquement aussi c'est bien c'est bien fait wax dëgg yàlla. mais Moustapha léegi man xam naa lan moo tax moom mu ne euh, maîtresse la àndal parce que moom daf fi toogoon ci àdduna bi yëpp ne moom du moom góoru benn jabar la du takk ñaareel léegi tey mu takk ñaareel yow kay li tax nga far ci maîtresse. yow kam la wax dama takk ñaareel. ah ñoo takk lu ma leer laa ci am. kam moo la wax loolu. takk nga wala takku. ah non loolu moom loolu moom ku la wax dama tàgg. Mbaye dama fii Sénégal nopp amul ku biir da takk ñaareel bili wala takkoo ñaareel léegi du wax sax dama takk mel ni gars yi ci mën la ñuy déggee nettali ci gémmiñu borom la dàqee Moustapha kii woon ma ko jël ma ko gros plan comme ni ko gars yi di waxee da takk ñaareel wala takkoo wax boobu noonu du waxu caméra <laughs> du waxu caméra. am nga ña am am nga ñaareel. am naa soxna. Euh, léegi Billy euh, dafa war a leer ci askan wi dafa war a leer ci sénégalais yi euh, soxna yi ñaata la benn la wala ñaar la mu leer xam naa ne ñëpp baax nañ sax waaye ñaata nga ci am. ñett. <laughs> ndax ñett grand. si ñett soxna la am am naa yow tamit bàyyi bàyyi sa fooyi waay. Ah, foo xam nga xam nga xam nga fan ngay waxee nii lii lan la bët set. waaw kon bu bët setee du lépp. loolu lépp di setee. kon xam naa xam naa wax. ñetti soxna la am. ñetti soxna nga am. waaw. d'accord ñu ngi fi. waaw ñenn ñi ñu ngi fi. Hmm. Euh, léegi euh, bëgg nañu ñëw tamit aussi ci bës bi après bi bi la jeexee nan nan nan nga ko téye woon. Euh, diisoon na trop diisoon na parce que jamono jooju siiw yomboon na yombul yomboon na parce que benn télé moo fi amoon ah yombul parce que ci biir benn terrain mu am ay mu am vingt 22 joueurs. xam nga ku nekk day bëgg ràññeeku donc moo taxoon affaire bi buuxante bi xawoon metti donte man objectif bi du woon buuxante dama ci dal noonu rek dama ci par hasard laa laa ci dal euh, ma joué ko mu nekkoon lu ma neex ay affaire joué film théâtre yooyu noonu daf ma neexoon mais xalaatuma ci woon sax xaw ma woon ni sax dina génn télé wax dëgg yàlla Euh, parce que xale laa woon maa ngi woon ci yeneen man joué naa li may joué bi film bi bi ñu paree tournage bi pendant un mois un mois la tournage bi euh, duré bi ñu paree tournage bi man nekkoon naa ci sama yéen fàtte woon naa ko sax jour bi film bi di génn naa seetaan ko ak sama waa kër ah ci guddi ba ci guddi googu noonu samay maam ak samay mbokk ñëpp woo sama yaay pour jaale ko ah, parce que nee nañu bi li dee nag yooyu noonu après le lendemain man ak sama yaay ak sama rakk ñi dem tàggu sama benn tante bu doon ñibbi Paris. parcelle la woon a parcelle unité 8 euh, ñun daal yàlla dogal am benn koñ bu ñu dugg am benn femme bu ni i mu ngi nii xale baa ngi nii xale baa ngi nii ñu tourné ñun daal ci diggante une minute et quelque rek koñ bi fees dell dell dell foo tourné kenn amatul fu muy jaar après euh, ñu mujj fatu ci benn kër am benn femme bu baax bu ñu jël mu ne ñu ñëw leen ñëw leen ñu daw man sama ak sama rak ay dix huit heures yi nii ba vingt et une heures foofu lañ ñu foofu la ñu làqatu ba nit ñi wàññeeku après ñu génn ñibbi mais bi ñu génnee ñibbi yàlla xam na ni dama rëccu lu tax sax ma joué parce que euh, diisoon na trop loolu noonu ko après loolu nga nar a dundee noonu ko nga nar a dundee noonu foo romb ñu xàmmee la mënatoo def mënatoo dem. Euh, plage comme ni mu la neexee mënatoo xam nga mënatoo def ay bêtises quoi dem tooñ xam nga ñu dóor la nga daw làqatu xam nga et cetera yooyu noonu xam nga mënatoo def yu bari parce que après tu cesses d'être un enfant normal. Euh, Billy déggoon nañ ko fi ay jamono ñu ne euh, yoon daf ko teg loxo ba jotoon na dem sax xaw ma rëbës la xaw ma lan moo indiloon euh, lënt lant yooyu. waay yow munoo bàyyi wax boobu nag tamit nag. Oh, loolu ay nattu la woon rek dafa mel ni nga xëy fii nii rek di dawal oto sans permis police teg la loxo créer la problème et cetera comme noonu la rek xam nga nattu la bu bu bu ñu nangu woon nag wax dëgg yàlla parce que bu ñu defoon ñun li ñu war xëy na du ñu egg foofu noonu yëpp quoi mais comme on dit nit matul hmm? nit matul pour la petite histoire dama yóbbu woon sama waajur bu góor hôpital bu accidente woon xam nga euh, ki mu fa xawoon jëflanteel amoon nu mu xawoon tax nu mu taxawee noo xamante ne neexuma woon. médecin bi la woon. médecin boobu xam nga sama xol jóg man tamit ma ma ma ma ma jàppante moom dóor ko xam nga après police ñëw euh, ñu teg ma loxo man ma def garde à vue soixante douze heures après ñu defeere ma ma yóbbu ma yóbbu ma euh, fële foofu laa nekk euh, après ma bénéficier d'un d'un retour de parquet donc ma dem fanaan centrale deux jours tamit. xam nga chaque jour buñ ñëwee buñ ñëwee ci euh, tribunal procureur bi du disponible ñu delluwaat retour de parquet bi ma fa defee deux trois jours defe naa après gars yi def non lieu ñu annulé ñu kii bi quoi procédure bi yàlla dimbali ma ma génnaat foofu noonu xam nga may mais bon xam nga jàngat bi may la ah mooy nit bu la yàlla may ba nga koy jëfee pour noot doomu aadama ah. Euh, man li ma ci jàngat mooy bu ma àndoon ak humilité humilité dafa jafe nag parce que humilité dafa war a nekk d'abord ak sa bopp nga xam sa bopp nga xam ni doo dara nga xam ni da ngay dañ da ngay dee ñi gas suul la jarul wane ngóora ngóora xam nga fan la fan kan la jara woon mooy sa njaboot sa jabar ak say doom ñooñu rek ñoo jara woon ngóora parce que ñooñu ñoo la la yàlla dénk directement nga war leen dundal nga war leen solal nga war leen faj bu ñu feebaree ñooñu nga war a jaay ngóor ba fu ñu taxaw ñu ñu lay ndamoo ko xam nga mais comme on dit rek nit mooy juum quoi xam nga après man sama xol bi mu jógee waroon naa bañ a topp sama xol xam nga sama xol bi mu jógee ba ma jàppante waa ji xam nga même bu fekkente ni moom amoon na nu mu doxalee noo xamante ni xëy na c'est anti professionnel man waruma woon waruma ko woon topp quoi ci loolu xam nga. bàcc bàcc. non dañu xeex. nga defal ko bagage. non non non def est-ce que est-ce ma defal bagage sax <laughs> xam nga dañuy xeex quoi après xam nga après gars yi ñëw àtte mais comme on dit ñoom tamit wax dëgg yàlla ñu abandonné pour yi xam nga bi ñu toogee waxtaanaat ak gars yi ñu abandonné poursuite yi xam nga yàlla def jàmm quoi yàlla def jàmm mënoon na egg foo xamante ni Euh, nettali ko du yomb quoi. Hmm? yàlla moo ñu ci suturaal bu baax a baax. Euh, Billy bi muy nekk xale déggoon nañ ne dafa feebaroon euh, feebar boobu fan la toll Billy yëg na tan wala wér na parce que am na xaalis am naa dem na si tubaab bi faju Babacar du boo feebar da nga dem tubaab bi ñu faj la am na xaalis kon Billy faju na léegi. non <laughs> loolu tamit beneen nattu la rek loolu loolu mais ça va sant yàlla bu baax. sant yàlla bu baax feebar ak dund moom loolu mooy ànd dafa mel ni lekk ak dund rek ak leneen ak leneen ah, mais ça va ça bu baax a baax yooyu ay jaar-jaar la woon rek yoo xamante ni waroon nañ ko xalaat xalaatoon nañu partage ko ak nit ñi bon xëy na du lu ñuy bëgg wax souvent wala du lu ñuy bëgg nettali mais léeg day baax pour nit ñi xam euh, lu waral yenn décision yi et cetera bon bi ma koy nettali boobu c'était par rapport ak sama jàng bi hmm, li ko yàq donc loolu ci la bokkoon xam nga mais euh, mais maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax alhamdulilah yëgatuma dara ci sama yaram ñu ngi dégg jàmm ñu ngi liggéey ñu ngi sport waaw ñu ngi sport bu baax a baax di ànd ak ay mbër di spoor bu baax a baax a baax waaw. mais naka la def ba yàq sa jàng parce que liñ la waxoon ne boo amee du 10 ans lañ la waxoon noo dangay da ngay da noppalu loolu nga doon xalaat wala lan euh, <coughs> waaw non xam nga feebar moom am na fu muy toll àndul lenn noppalu la loolu la woon quoi maintenant bon comme on dit euh, munoo munoo munoo di am métit di ko booleeg ay jàng ak affaire demee noonu quoi moo taxoon benn instant ñu arrêté ñu ma arrêté dem école après suñu waa samay waajur utal ma ko may jàngal ci kër gi foofu noonu xam nga loolu loolu moo xawoon yàq sama jàng mais maa ngi sant yàlla après bi ma demee ba xam nga récupérer bu baax a baax man dama sopp nag après dama gëstul sama bop lu bari bari bari bari nekk genre autodidacte yooyu noonu quoi xam nga donc voilà quoi mais bon loolu on va dire c'était un passé un peu sombre de ma vie mais tey maa ngi sant yàlla bu baax xam nga. mais ana médecin boobu du def loo xoon boo dundee fukki at da ngay dee tey mi ngi lay gis. waaw non mais loolu kii la woon loolu xam nga diagnostic du loo xamante ni c'est à cent pour cent nit ki dafay wax li nga xamante ni xay xam-xamam foofu la toll mais xam boo gis am na xam bu ko féete kaw. Hmm? loolu li ci nit war a jàngat rek mooy euh, jafe-jafe bu mu tar ba nga découragé wala nga bàyyi sa loxo continue de te battre ñafel nga xam nga gëm ni que lu nit mën yàlla sàkk na ku ku mën ku mën ki mën xam nga xawma sax nañ koy wax man na pël laa de olof bi leerul noonu xam nga et puis euh, bu fekkente ni tamit xam nga dund nga bànneex bul bul ko dund ba nga fàttani ni jafe-jafe mën na ñëwaat xam nga bul dund wér-gu-yaram ba nga yaakaar ni doo mës feebar mais bul feebar itam ba nga yaakaar ni doo mës a wér xam nga donc loolu noonu pour nit ki xam ko dëggantaan dëggantaan maa ngi ñaan yàlla musal ci bépp doomu aadama mais il faut nga am nga nga jaar ci tuuti xam nga nga jaar ci tuuti mais boo ci jaaree di nga comprendre di nga comprendre loolu yëpp quoi mais ci kàttanu yàlla tey jii nii ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax. wér nga fi mu ne nii de vue moom wér nañ moom. <laughs> macha allah mhm. d' accord euh, léegi waxtu waa ngi xëcc jëm ci jeex comme niñ koy defee rek saa su nekk bu ñu amee invité dañuy wax ak moom li nga xamante ni mooy mooy actualité ci dëkk bi euh, ci feebaru corona bi gis nga barki démb xale yu wàcc ci mbedd yi euh, di taal ay pono ba am kenn ku ci ñàkk bakkanam ban gis-gis nga ci am. gis-gis bi ma ci am mooy il faut justement que ñu jéem a renouer c'est-à-dire de l'ordre ak institution yi nga xamante ne ñoom ñooy jël en charge ces question là ñu jéem a renouer avec les populations parce que aujourd'hui il une sorte de cassure entre boo jëlee par exemple force de l'ordre ak population yi et loolu c'est mondial ah boo xoolee actuellement lu xew ci àdduna bi yëpp boo demee États-Unis avec la mort de George Floyd nga dem Paris xam nga population yi dañu bañ police te pourtant police ay nit ñoo fa nekk di liggéey di daan seen doole foo gis nag am na ku bon am na ku baax ba ci service bu ndaw bi nga xamante ne man foofu laa nekk am na ku bon am na ku baax mais nit ki bu bonee bu mu tax yow nga bon royal ci ki baax nga ànd ak moom ngeen ñeneen roy ci yéen quoi loolu mooy li am solo donc man je pense que jàngat bi ma ci am mooy nit nit ñi nañu ànd ak dal ah nit ñi nañu ànd ak dal nit ànd ak seen xel ànd ak seen sago. bañ a saalit parce que dëkk bi jaxasoo na adduna bi jaxasoo na xam nga euh, feebar bi ñuy wax corona yàq li mu yàq dafa doy waar dafa bari li mu yàq dafa bari xëy na du feeñ léegi nii nii nii nii mais bu bi si kanamee nit ñi dinañ ci dinañ ci rendre compte à ce moment laa difficile il faut que nit ñi ànd ak seen sago ànd ak dal xam nga bañ a saalit loolu rek mooy lay am solo parce que ci ñëpp la metti ah ci ñëpp ñëpp la metti ña ëpp doole nañu dimbale ñi amul doole xam nga képp ku ci nekk képp bépp nit fi nga yëngu xam nga na nga ko na ko utiliser pour mën a jàppale ñi nga war a mën a jàppale loolu mooy li am solo mais euh, jamono ji jaxasoo na man sama jàngat mooy dafa am benn changement de cycle boo xamante ni moom lañ nekk buy opéré wu moom lañ nekk ci dund ni xam nga nañu adapté wu jéem a ànd ak moom bu ñu forcé lu ñu forcé fii nii contre la nature dañuy day day dañuy ñun ñooy ñun ñooy torox. xam nga mais la nature et ce qu'elle ñun nañu ànd ak moom ak changement yi nekk di opéré wu nii ak changement de cycle ak yooyu noonu yëpp ñu mën a euh, créer harmonie entre ñun nit ñi loolu mooy li am solo ko waaw loolu li ci des yëpp euh, comme on dit yëfu nit la rek juum dina am ay bavure dina am ay ay ay ay délinquance dina am pillage dina am cassure dina am yooyu noonu yëpp mën na am mais bon au point nit di ci ñàkk bakkanam c'est c'est c'est déplorable c'est malheureux xam nga dañuy ñaan yàlla rek loolu bu mu amaat waaw ñu ñaan yàlla loolu bu mu amaat quoi et puis ki nga xamante ni tamit ñàkk na si nam yàlla na ko yàlla xaare àjjana di ko jaale famille wam yëpp quoi. Euh, géey après korité bi gis nañ ay xale yu ndaw suñuy moromu sœur suñuy moromu frère yu nekk ci ay appartement di def naka su dul noonu ku ci mel ni ràngu i tamit ba yoon teg ko loxo euh, lan ngay wax euh, su suñu rakk yi ngir ñu mën a bàyyi xel. a ah, ñu xam ni nañu bàyyi xel ni que benn benn bés dinañ leen ni ah seen doom a ngi nii ku ci nekk xalaatal ni benn bés dina ñëw dañ ne doom a ngi nii doom jooju dina màgg te su màggee dinañ ko ne sa baay moo fi defoon lii wala sa ndey moo fi defoon nii boo xalaatee bis boobu noonu rek di nga dinga nga wàññi lu bari parce que ñoom bu ñu xoolee ci seeni waajur tey ñooñu bu fekkente ni ñoom ñoo def loolu noonu parce que tamit man dama ciy maandu ah wax dëgg yàlla bëgguma tamit. waxal nit loo xamante ni fekkewu ko seedewu ma ko ay dégg laa ci am te réseaux sociaux yi ñoom xam nga boo déggee dara maandu ci rek moo gën parce que lu ci lu ci bari du dëgg hmm? donc ku nekk am nga droit mën nga bénéficier euh, chacun a droit au bénéfice du doute donc euh, man damay damay damay damay jàpp ni nit judduwul bon xam nga ce sont les circonstances wala environnement bi muy évoluer wala affaire yooyu noonu moo koy changer mais ku nekk am na chance ñu defar ko mu defaru xam nga kon bu ñu tàyyi di wax di sensibiliser suñuy doom suñuy rak suñuy xarit suñuy mag sax parce que mag sax mën na juum xam nga donc euh, ñu ñu ñu ñu delloo si seen xel ci seen bopp ak ci yàlla xam nga xam ne ñun dañoo am ay valeur bu ñu xoolee tey jii nii suñuy fondement wu société bi nii di suñu mag ñu baax ñi tëdd fii ci dëkk bi bu ñu xoolee si ñooñu xool ci seen njaboot xool ci seen fi ñu jaar nañ xam ne am na ñu yàlla may loolu nañ ko sàmm buñ ko sàmmul bu demee rek. perturbation day ñëw ci dëkk bi nii xam nga euh, ñu ngi ñu ngi leen di ñaax rek ñu bàyyiwaat gën a waat xel ci seeni valeur seen i yar xam ni ñi ñuy tubaab yi ñuy toppandoo nii dañoo am seeni dund amuñu waay amuñu wéeruwaay ñun dañoo am ay wéeruwaay xam nga euh, wane wu jël xaalis di ko sànni di wane wu et cetera et cetera bon tant qu'on est jeune grawul yooyu ay délire la mais am na fay toll nañ bàyyi yooyu yooyu amul amul njëriñ ay wane yooyu amul njëriñ. Euh, léegi waxtu wi jeex na projet yi lan la ci lan lañ na mën a xaar. waaw nañ ñu xaar ñun itam ñu indi suñu wàll ci euh, production série yi ñu ngi ci incha allah on vient avec deux projets de série euh, ak ay projets d'émission yu ñu nekk di togg instant bi nii incha allah. comme ni ma ko waxee rek au tout début bis bu ñu ñëwee rek incha allah dinañu yëglu te bu ñu yëgloo dinañu dégg bu soobee yàlla. dégg naa nga ne bili bili bi nekk ci pâté Marichou sa tur bi la sàcc. nga am da nga ci am la naqari. <laughs> non Billy déjà sama rakk la sama booy la euh, Billy sama booy la depuis mu nekk xale wax dëgg yàlla euh, doon na ñëw kër sama rakk la samay la doon àndal xam nga euh, moom nag ni mu mel noonu à part rôle lu bandi biñ ko jox noonu. ni mu seddee noonu noonu la mu sa mel booy bu baax la booy bu bien la wax dëgg yàlla daje nañu keroog sax ma koy tooñ ma ne ko booy yaw yaw sama tur nga jël nga sàcc ko tout ça la xam nga après ñu xaw a tooñante et tout mais non euh, c'est normal aussi bu fekkente ni xëy na peut-être tur boobu noonu daf ci gis boppam euh, du du li mu sàcc c'est un héritage man noonu laa koy mën a waxee rek génération boobu yëpp xëy na dañuy gis peut-être Billy Boy euh, defoon fi benn film bu ñëpp apprécié xam nga ku ci nekk xëy na mën nga ci identifier wu quoi mën nga ci gis sa bopp xam nga donc euh, pour man moomuma Billy Boy c'était un personnage que j'ai incarné et puis voilà quoi ku nekk mën na tudd Billy Boy dans n'importe autre rôle. ana ci ngës. defe naa mu ngi Espagne sama yaakaar foofu lay sëy yàgg na fa nag de waaw yàgg na fa. léegi ñu bàyyi la nga tàggatoo. Ah, Euh, maa ngi gërëm sama ñetti jabar yi di gërëm euh, sama. Billy bàyyi li ngay def waaye yow tamit nag bul gëlëmal nit ñi ñaari jabar nga mais fier ci. mais gëlëmul ma je suis fier d'abord. non non mais ragal féete day a ñaari jabar man samay ñetti jabar laa féete. non non yoroo ñetti jabar na bul ma bul yënga sama xol ñaari jabar nga. yow xanaa laajatoo da ngay affirmer de. non damay damay laaj mais. ci cadre journalisme de. Mbili <laughs> Mbili dama bëgg mu leer rek ñaari jabar. damay laajte wala laajte woo. damay laaj journaliste la wala werante kan nga. journaliste voilà léegi dama ñetti jabar la maa ngi sant di gërëm samay ñetti jabar. say ñaari jabar. <laughs> di gërëm téléspectateur bët set yëpp euh, internet bët set yëpp maa ngi leen di gërëm yéen maa ngi lay gërëm yow Lalla sa équipe bi Babacar ah n'est-ce pas ak euh, Moustapha gars yi maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di leen euh, encourager di leen ñaanal liggéey bi gën a jëm kanam lépp li ngeen ci séentu yàlla na kawe seen njort incha allah bu teewee teg jiit leen mu doon loo leen di séddoo tamit ak ak askan bi parce que voilà xam nga gars yi dañ leen di seetaan dañ leen di suivre xam nga bu leen bu leen nay nag ci xam bi ah bu leen nay tamit ci xaalis waaw xaalis bi ngeen di am bu bari bi yëpp may leen ci ngeen bokk ko doomu aadama yi leen di seetaan n'est-ce pas temps en temps sax boo leen demee seeti seen say artistes yi ak yooyu noonu ñu mel ni ñun ngeen baay fi dara. ngeen bàyyi fi dara. non grand sérieux donc voilà ñu ngi ñu ngi gërëm ñëpp kontaan nañu trop ci visite bi et puis bu fi buñ fi waxee loo xamante ni xëy na am na kum ci metti ñu ngi baalu ak xam nga lépp luñ ci wax muy jëriñ yàlla nañ ko bokk ñëpp. waaw yàlla na nañu dajawaat incha allah euh, ñëpp yokku bu ñu dajawaatee ñu fekk incha allah ñiy seetaan ak ñi nekk fii ku nekk yokku ba nga yëg ko bët set ak internet yi léppay set. <laughs> ayca <laughs> mbokki internet yi comme ni ma leen ko waxee woon rek nee naa leen man moom chaque jour euh, benn ndaanaan lay dajal euh, di am mbégte nag ak contentement trop trop ci bili mi ñu dalaloon tey di leen jox dig daje nag xam naa ne beneen émission lay doon beneen ndaanaan bu may dajal Amina Mabo sama monteur bu mag bi ci réew mi maa ngi lay gërëm waaye Moustapha sama caméraman bi béba caméraman yi Mbaye Babacar maa ngi lay bëggee Bintalaay sama xarit bi mais Moustapha tey nag damay bëggee sama benn fans bu nekk Casamance moom laa njëkk a gis sama sama taaw moom laa njëkk a gis comme fans Mata borom baasul maa ngi lay bëggee baax a baax doom yaayu euh, Sarata ak Lisa maa ngi leen di béggee ak seen waa kër yëpp Cissé ngaari yow tamit Adama Cissé euh, nekk foofee nga xamante ni moo di ségressé ko maa ngi lay béggee bu baax a baax xam naa ni di leen jox dig daje beneen ndaanaan bu may dajel jërë ngeen jëf